de vote yëpp ak moom. <laughs> yow yow lan moo tax chaque jour ngay. di ci biir centre biir bi waxuma centre bi ci bi toog di compter waale ak ñoom beneen seexu daawara mu ngi ci beneen bureau beneen seexu daawara mu ngi ci beneen bureau. donc ay élection mun buñ ne mën nañu xajamal processus bi mën nañu jaaxase lii mën nañu éliminer ay candidats euh, mën nañu langaamu ci justice pour éliminer de potentiels candidats loolu je suis d' accord parfaitement loolu moo am Sénégal. Mhm. wala boog loolu moo am ci nguuru Macky Sall loolu d' accord naa ci mais buñ ne élection yi sàcc nañ ko moom du dëgg mënta am. on peut avoir maintenant nag li ñu war a def. ñi nga une société civile yéen élection comment un membre de la société civile pour faire benn tweet wala un euh, quelque chose. di wax ci Sénégal li koy di wax di wax ni comme si Sénégal ngi te moom moo gën virulent ci haute société civile bi. mom rek lañuy lañuy la gis ci ay tuitam mom lañuy dégg muy wax mom lañuy mom lañuy mom moy am tu vois. donc kan la kan la kan la kan la il ne parle que de la politique daa ñëw ci tour bi maa ngi hmm. et il ne parle que de la politique. donc dama né que ça soit muy Alioune que ça soit muy euh, l'autre là bu Africa. Euh, euh, Afrikajom Santa Afrikajom Santa. Hmm dama ne la ñoom ñaar seen rôle dafa war a nekk ci ñu faire élection en 2024 bi ñoom dañ cee war am 2024 bi ak apaisement am dal ñu bàyyi madame chaque tweet wala chaque communiqué que vous ko il parle de Ousmane Sonko Macky Sall ñoom ñaar kese nekkuñ ci réew mi Ousmane Sonko Macky Sall moomuñ réew mi il y a d'autres candidats il y a d'autres personnalités politiques il y a d'autres bavures il y a d'autres war a mën a wax ana ana ana euh, nu mu tuddati seen mbokk moomu dëkk Géejawaay te ñu jàppoon ko ci faux billet bi. Bougazelli anam liberté provisoire lañ ko mayoon di. anam muy këram di dox ay soxlaam di def ay activité politiques am. Mhm. on n'en parle pas personne n'en parle ça ne nous inquiète pas. ana policier bi fi tëddoon fii nii ñu dóor ko ñu dóor ko ay briques. mais wax mais wax nañ ci de. wax nañ ci de. dama ne la anamu fu mu nekk instant bi ci lu mu nekk. on sait pas. Hein. dama ne la saa waay dafa bëri lu ñu war a mën a wax ci Sénégal te société civile bi bëri ay priorité ay mbir yu mu war a wax bàyyi ko fi di wax ci diggante Ousmane Sonko Macky Sall <laughs> c'est-à-dire man c'est ça qui c'est ça qui m'intrigue en fait loolu moom mooy loolu moom loolu mooy kasan suma xol bi en fait. mais Momo. on a beaucoup de choses yu ñu war a mën a wax mais société civile boobu ne parle que de Macky et de Ousmane Sonko. merci Momo ñu baye Fatou mu terminer rek ñu dem service commercial. non tu as bien dit hein tu as bien donné l'exemple de Bougazali Seydina Fall. Euh, tu as bien donné parce que dama si ma un citoyen comme nous Ousmane Sonko n'est un citoyen. Mm-hmm. mais fan la bok Bougazali fan la bok C'est une question que je lui pose non fan la bok. non. nekkum def lan mo tax lan mo tax on n'en parle pas. mais on en parle Macky Sall Ousmane Sonko la ñuy waxtaanee. élection la ñuy parce que c'est le candidat Ousmane Sonko qui pose problème. Mhm. donc il faut ñu qui pose problème à à tout le monde tout le Sénégal. et à ton président de la République à mon président de la République à Macky Sall. dañ koy nangu. mooy koy bàyyi mu ak man. c'est le candidat Ousmane pose problème. loolu moo tax Ousmane Sonko Macky Sall il faut ñu koy wax acharnement yi fi am ci kaw Ousmane Sonko il faut ñu koy wax on ne va pas retour on va pas retourner en arrière ñun ñëpp xam nañu. xam nañu xew donc mais lan moo tax duñ wax Ousmane Sonko Macky Sall dañ koy wax parce que maanaam loolu moo fi nekk dañ koy wax. loolu ngeen bëgg mu ne il faut ñu wax ko ñi ngay lim nii ay Alioune Tine ay xamala la mais ay nit lañu dañuy dañuy ay droits wu doomu aadama mais bu sont les droits de de Ousmane Sonko ñun ñi léegi yow da nga cee génnee sa bopp ñun ñi ñun ñi changé naa wax ji ñun ñi ñun ñun ñoo dugal Sénégal ci guute gi mu ne parce que nous on ne parle que de la politique C'est politique vrai malheureusement. C'est vrai. mais nous, ñun la mais nous ñoy wax politique matin midi soir nous nous def ay Sénégal ñaari ñoo fi dox politique. ak ak ak ak kaa kaa ay mbiru diw tas na diw sëy na diw laal nañ ko fii diw def nañ ko fee looloo fi dox ci Sénégal mais loolu ñun la. nu mu nekkee ñun mais ñun ñoo. mais moom nag foofu moom du ma du ma d'accord ak yow parce que journaliste yi ñu ngi def seen liggéey am waree non non moom non non moom foofu moom d'accord ma am ah, su may wax dama ne il faut qu'on assume il faut qu'on assume côté politique loolu moo fi nekk c'est que polarisation bi moom moo ngay jox parole wala man ngay jox parole na noppi moom seen politique la napp nga ñëpp c' est non. napp nga ñëpp mais moom laa posé question. mais parce que mënuñoo gis la parole kenn du wax kenn du argumenté. Fatou moo may Fatou moo bu ma posé question dafa bàyyi ma wax. non non man dama la laaj rek. waaw laaj la bàyyi ko mu continuer après soo amee loo si xam nga côté politique du ñun ñoo ko imposé proposer askan wi. waaye politiciens ci bopam a hmm. commencé par notre suñu njiitu réew. ñoo fi ñëw jël benn doomu aadama. Hmm. acharné wu ci kawam. jël ay droit wam hmm. sànni ci àll ba teg ko la nga obligé tout un sénégalais nga nekk ci biir rew mi nga nek bitim rew par force da nga ci dugg parce que sénégalais du gis ku ñuy néewal doole mu di xol et que Ousmane Sonko dañ koy néewal doole il faut qu'on il faut qu'on en parle aussi il faut qu'on en parle une bonne fois nous wax ko léegi moomoo loo ci doon yokk ñu dem publicité dellu si waat. non bu duggee ci kaw Ousmane Sonko duñ ci génn. sax duñ ci de lui poser une question. dafa toog fii que lan mooy parce que je non mais. j'ai juste posé question. Nous, on parle en tant que journaliste. mais mais Yang Yang, Yang c'est Yang Fado. Yang, c'est un, non non Yang, c'est un, non non s'il te plaît ñun mënuñoo waxandoo ay ay deux personnes à la fois da ngay bàyyi kenn mu wax su paree on de l'organisation de la société civile et moi je suis parfaitement je suis j'ai le droit de dire que cette organisation pas ne me convainc pas Non, ñun nangul nañ la ko depuis nangul nañ la loolu et cette organisation si nangu naa ko yow yaa ma bàyyiwul ma wax mais man nangu naa mon opinion personnelle mm. c'est que cette organisation c'est une organisation organisation société civile au Sénégal est une organisation société c'est une

s'il te plaît noppi non noppi s'il te plaît maa la ko ñaan moom moo taxawal ma ma waaw sama njëlbeen wax ma commencé ma ma une question mais question bu doon bëgg nga def ci taxaw ma tontu ko non non du ma taxaw non non Fatou tu me laisses tu m'as pas laissé répondre Momo baa ko mu tontu ba léegi je t'ai pas dit ma réponse grave je retire la question non non non si tu retires ta question moi je vais pas retirer ma réponse dama lay tontu en tout cas je retire ma je suis journaliste ou un membre de PASTEF

kii mais donc retiré nga sa question. Fatou moom yaa ngi ko laajtoo ko as. baax na Fatou yomb na waaye yëg après ñu ñu yëg ñu. xam nga man ah. tudduma fi Ousmane Sonko. Ah. déjà. Mon moo sénégalais yi. Hmm. dafa melni ni mënuñu wax ci lenen lu Ousmane Sonko Macky Sall. Hmm. je lui explique. Hmm. lan mo andi sénégalais yi mënuñu wax ci lenn lu Ousmane Sonko Macky Sall. C'est parce que dañu jël ben doomu adama acharné wu ci kaw mais loolu c'est la triste réalité que momo nanguko ak que moomoo bañ ko que kenen nanguko ak que keneen bañ ko c'est la vérité. on le dit et je l'ai toujours dit plateau bu ma toog dama koy wax. je l'ai toujours dit. dañu jël ben doomu adama tek ko lo xamante bi

loolu laa koy expliquer ni lolo waral ma andi droit ou Ousmane Sonko ñu violer ak yooyu. mais je suis pas là pour duma avocat Ousmane Sonko duma avocat wu Macky Sall. muy noonu alors service commercial lañuy dem dellu ci waat si suñu deuxième partie l'essentiel du matin.